Ah, suñ teewaay tey bii li ko waral mooy di teertu kii nga xamante ne mooy suñu président maître Abdoulaye Wade. parce que li tax maître Wade jaral ñu suba ba tey ñu taxaw fii parce que dafa yoroon Sénégal ñu gis ni mu yoree woon Sénégal euh, bëggoon Sénégal te ah, di liggéey Sénégal te tamit xam dëgg bi nekk Sénégal te instant yi moom eh! dëgg. instant yi dëgg amatul Sénégal yoon amatul Sénégal Sénégal dëkk boo xamante ne lu neex waaye def lu ne ku mu neex nga jàpp ay doomu aadama comme yow di tëj parce que ay karimiste lañ ay wadiste lañ nga jàpp di tëj di def lu leen neex te ñun loolu moo ñu metti moo tax ñu génn tey jii moo tax ñu génn tey jii di teertu ki nga xamante ne mooy suñu président Maître Wade pour won ko ne sénégalais yëpp ñu ngi ak waa PDS sénégalais yi ñu ngi ak moom Abdoulaye nag li maa ngi koy jàllale benn message ngir jëm Sëñ Tuubaa mi bokk mu jàllal fexe ba jàppale nu kenn ci opposition bi ndax fi ne moom la suñu jox doole ji moom jox garaat bi noonu jàppale kenn bu ko defee ñu ànd ko pour daaneel Macky Sall ak seen responsable politique am na lu benn commandant gendarme bu waxoon nee na on n'accepte pas qu'on brûle ce a n'a pas bi ñu nekk ñun ay sénégalais lañ te ñun ñoo ko gën a am na ñaari ñaari congo ak APR yu jaar fi pour provoqué ñu mais doon ñu accepté bu ñu provoqué dañuy trouvé ci suñu yoon. voilà bu dee ñetti waxtu tuddee la ñëw yéen ñu fanaan fi ñu fanaan fi ñu fanaan fi di ko xaar jaral nañu ko parce que li mu def ci réew mi kenn defu ko. vous avez vu un président qui passe sept ans président bi nga xam ne dem na juróom temps Senghor du ci temps Abdou Diouf Abdou Diouf ñu ne sax kenn du yëg Macky Sall ñu ne moo ko gën a soofal jërëjëf loolu laa doon wax jërëjëf